ci privé bi ñoom nag ñu nga yëglu ñoom it nee nañ lépp luy jàng nag dañu koy dakkal ñooñu nga xamante ni ñoom ñoo ko jiite doon jën ak taskatu xabaar yi àdduwaat nag ci bor bi nga xamante ne nii nguuru Sénégal amal na leen ko xeex bi dox ci diggante kujje politique gi ak euh, nguur gi mbiccoog mbaalo gi dañ ko war ne tegg ci suuf rapport yu nag ak yu IGE dañ ko war a biral ak yeneen i ponk yoo xamante ne na nañu ko euh, tey ji euh, coordinateur bu yees bi jiite forum civil nag janoo na ak taskatu xabaar yi muy guleet nag ba nu ko rek tegee ci bopp kuréel googu wàllu tàggat yaram daan ci àddu ak Sénégal mi waajal diggam ak Soudan ci ACR ji Sadio Mané nag xëy na tàggatu ni ki uh, tey ji am yaakaar lool uh, ci jongante boobee donte jàpp na ni uh, jafe na ci stade Léopold Sédar Senghor ga ñu ko war a amalee nag ñu ne nekk nu stade ba daal doy na waar mu mel ni lu bare bari kon war na koo defaraat ci boobee stade sunu natango xëy na fa doxantu mbokk yi ponk yaa ngi ni yaatal gi léegi léegi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi ñu tàmbali ko rek ak liggéeykat yu King Fat Palace wax naa ko sànq ñi ngi doon amal nag doxu ñaxtu dooree ko ci rond point Almadi ba ca monument de la Renaissance ñoom liggéeykat yooyu nag di naqarlu anam ya ñu nekkee ñu ne metti na lool ci euh, seen yitte nag bokk na daal ci li nga xamante ne diggoon nañ leen ko euh, ci wàllu dëkkuwaay la ñu ne juróom benn at a ngi nii waaye Furaas kañ ca joxan baaraam nag du kenn euh, ku dul seenub njiit Racine Sy Véronique Ndour moom moo wax ci turu liggéeykat yooyu ci micro Soadou Ndiaye xamul hôtel lu xew hôtel King Fahd da ngay wax lu la neex muñ nañ nag ba lu ba suñu muñu kaay yem fu mu nekk nii lu ñu am jël dootuñu nangooti ñu ñuy ñu ñuy humilier dootuñu nangooti ñu ñuy toroxal suñu biir nawle yi direction bi lu mu bëgg a tey ñoo ngi ca et on est prêt on est prêt à faire face à cette direction dootuñu nangooti ñu ñuy xoqatal 27 ans King Fahd at am na ko ñu jox ñu ay terrain ñu fi nekkoon méridien accompagné wuñ ak ancien euh, ancien comité de gestion bu fi nekkoon ñu ne comme ay jàmbaar ngeen nañ leen accompagner jox lañ ay parcelles donc état de Sénégal moo génnee si lu muy am ne man naa leen jox à hauteur de 35 pour cent ça veut dire que chaque employé tey jox nañ ko 4 millions 772 600 pour mu am terrain mais tey lan lañ gis. Euh, président Racine Sy bu mu ñëwee lan la def nee na du liggéey ak promoteur bi mu fekk mais dama leen indi beneen promoteur tey jii promoteur bi moom mooy Sokabek xamuñu nag lan moo leen liyee ak Sokabek xamuñu lan moo ko liyee ak Sokabek tey jox nañ ko un milliard deux cent tey Sokabek moo ngeeg suñu un milliard deux cent terrain bu ndaw sa joxuñu ko léegi nag loolu lañ bëgg mu dagg tey tey tey tey tey lum ñu jara nañ ko yeneen liggéeykat ngi nii yu merlor door sax seen fukk ak ñaareelu euh, plan d'action muy ànd gësëm nag euh, boole ñi yëngu euh, ci wàllu wér-gu-yaram ñoom nag bank nañu seen yoxo ci liggéey bi dooree ko tey ji muy nag grève ñetti fan lu mënta ñàkk daal moom la moom la ñu kon nekk di def jamono ji loo xamante ni service minimum la ñu ko duppee rek ci kër docteur yi ñu ne nag dàq sax amal seen fukk ak ñetteelu plan d'action loolee nag ñu ngi ko wax gannaaw ndaje mi nga xamante ne amaloon nañu ko ci ACD jalgat yi ñu weesu du ñàkk ñu dellusiwaat ci ci euh, suñu yeneen jotaayu euh, xibaar ñu wax ci daara yu kawe yi nga xamante ni ñoom ñoo féetee ci privé bi nee ñu nag jàngale dootu fa am li ko waral nguurug senegal ba nëgë ni waxagul lu leer ci bor bi mu leen yoral loole nag ñu xayma ko ci ay milliards euh, di dem daara yooyu nag ña leen jiite doon janoo ak taskatu xibaar yi Cheikh Tidiane Cissé. waxtaan ci diggante nguur gi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy établissement privé d'enseignement supérieur fi mu toll nii dafa jeex. ginnaaw bi ñu jéemee dugg ci seen biir ci ay yoon yoon yooyu la établissement dañoo jàpp ni dañoo ses. tant que fayuñu cours yi euh, njàng mi du dooraat te ñu bees ñi nga xam ne war a ñëw ñu ngi war a ñëw tant que lii aussi réglé wuñu ko ñun xalaatuñu sax jël leen. c'est pas parce que dañu dañu dañu bëgguñu continuer mais dañ ko mënatul léegi li ñuy wax mooy état nañu fay suñu fukki milliards ak benn. pour ñoom li état bi leen yoral ci xaalis dafa bëri loolu. ba ñoom mënatuñoo dem ci seen liggéey. daaw ci bor bi bi mu ñu ameel mën nañ ko xayma ci 5 milliards ren bi ñu leen jàngalee ba année bi jeex fukki milliards la ak benn boo ko boolee muy 16 milliards. ñu ngi dépensé de l'argent ñu ngi wut ay xaalis fu nekk ci banque yi am na ci ñoo xam ne sax jël nañ seen euh, xaalisu bopp def ko ci école yi pour que école yi mën a continuer maintenant fi ñu toll. école yi mënatuñu dem. loolu juru ci ñi nga xamante ne ñooy jàngi foofu di fësal seen nakarlu te wax ni bi yoon du état bi deful dara ngir fay leen ñoom xam nañ fu ñu war a jaar ngir contraindre nguur gi pour mu fay boor bi. état war na war a mën a fay dette bi nga xamante ni moom la ameel institut privé yi bu ko defee ñun ñu mën a continuer suñu formation. incha allah dinañ essayer jéem a négocier dem ci mari tew ñaan dem fépp fu ñu mën a dem pour mën a régler problème bi bu dee loolu mënut a jàll nag léegi bon ñu jël beneen yoon bi nga xamante ne bi moo yoon bi sénégalais bi sénégalais yëpp xam. toj ay kaar taal xeex ay grenade lacrymogène ay weeraa ngi nii ñi nga xamante ne ñoom ñooy établissement privé d'enseignement supérieur di gën di néew loole ndax boor bi état di leen amal la tollu nañ ci 40 000 ndongo ndaara ñi nga xamante ne jàngatuñu ndax bor boobule. mbiccook mbaloo gi ci diggante kujje politique gi ak nguur gi dafa war a dàkk rapport yu OFNAC ak yu IGE dañ ko war nag fësal ba mu ne fàng ñëpp gis ko ak yeneen ponk yoo xamante ni yëkkati nañ ko ni ki tey ji coordonnateur bu yees bu forum civil bi daal di ne nak janoo ak taskatu xabaar yi forum civil nag addu ci yeneen ni ponk niki ki tey ji Fatoumata Touré Jafara Ba ci leeral. forum civil ni ma ko waxee léegi euh, bu dee rek kon yëf yi euh, yemb na euh, ki nga xamante ne kon moom mooy Birahim Seck yëkkati na ay kàddu nag moom moom nga xamante ni jamono ji moom moo jiite forum civil bu weesoo lool nag am na leneen loo xamante ne wax na ko mu jëm nag ci yorenu pétrole bi ak gaz bi ci gis-gisam nag mooy dañoo war a daal amal li ñu duppee transparence maanaam leeral dara bañ a lëndëm ca googee yorin lépp loo xamante ne dañ ko ci xaatim leeral ba mu leex nañ ñi ñu teewlu ay kàddoom Birahim Seck ci micro Fatoumata Touré. Sénégal fan yi nga dégg wàllu pétrole découvre découvre nañ ay euh, euh, euh, pétrole bu bari ak gaz nga xam ne loolu bu amee rek am na ñoo xam ne am nañ intérêt pour ñëw jaxasa dëkk boobu pour mën a accaparer wu zone yi nga xam ne ñoo exploité pétrole bi ñu ne nag jot na ci débat boobu noonu forum civil daal woo acteurs politiques yi woo gouvernement bi woo citoyens yi alerte leen artu leen ci li nga xam ne buñ deful nànk mën naa dal Sénégal te ñaanuñu ko mu ngoog ni ma ko waxee léegi coordonnateur euh, bu forum civil bu yees bi di yi Birahim euh, sekk mi ngi doog nag àddu gannaaw ba nu ko tegee ci bopp kuréel googu euh, ba tey wax na nag tey jile ci ay mbir bokk na ci këjëg politique gi ak nguurug Sénégal ni ñuy faral nag di doxale moom nag na mu gisee rek mooy mbiccoog mbaalo gi bari na dañoo war a def seen kéemtalaay kattan ngir yitte askan wi bu weesoo tamit wax na ci rapport yu OFNAC ak yu IGE nee na ne fàng ngir nag ñëpp xam na yëf ya ti tey ji eh, la doon jàkkaarloog taskatu xibaar yi forum civil Fatoumata eh, Touré ak jafara eh, Ba kon du du ñàkk ñu dellusiwaat ba tey ñu des ci loole ak ni ma ko waxee rek forum civil bi kon mu mel ni yëf yaa ngay bëgg sotti guerre bi la ñu bëgg mu dakk ci diggante ku jéeg politique ak nguurug Sénégal Fatoumata Touré. actualité ay questions yi nga xam ni dafay soxal askan wi génnam bu njëkk coordonnateur forum civil daal ci teg ci table bi ak dossier yu diis jëmale ko ci économie politique ak yeneen si wàllum politique sax moom muy ñaawlu mi jóg mbaaloo bi nga xam ni am na ci langue politique bi jëmale ko ci kuje gi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci nguur gi. situation boobu noonu forum civil ne Sénégal daal moo fi nekk zone boo xam ne dëkk boo xam ne jàmm ji je pense que constaté nañ ko fi. te débat bi bu continuer fi mu ñu ay salafiste laag du salafiste ay sunnite laag du sunniste ay débat tëru fi mu ñu ay fi mu ñu jëmee ba moytul danañ raw dëkk yooyu. ñoom sax li ñu bëgg mooy ñu gën a leerlu ci ñi nga xam ni rek noonu la ñuy joxee marché public yi. depuis 2017 mandat wu directeur général dafa nekk jeex na te décret 2007 545 du 25 avril 2007 moom ma ko wax. un mandat de 3 ans une fois renouvelable am na mandat 3 ans renouvelé na ko une fois mandaam jeex na kon président de la République war na jël décret pour jëlee ko fa pour que <coughs> marché yi mën a am crédibilité muy régulation bi également ci wàllu ci wàllu contrôle. waaye tamit ñu bëgg rekk ñu daal di fësal rapport bi nga xam ni IGE ak OFNAC defoon nañu ko ci atum 2017. forum sur les rapports yooyu nañu ko génnee parce que xaalisu askan wi la. te yoon moom moo ko maye surtout code de transparence dans la gestion des finances des finances publiques. forum civil daa ci taxaw temm nag di xeex li nga xam ni mooy injustice corruption ak yeneen sax ñoom nag taxaw nañu temm ngir lépp rek li nga xam ni moom mooy lënt-lënt ci xelu askan wi ñoom ñu daal ci koy leeral ñoom sax nee nañu rôle bi nga xam ni am nañ ko ci société bi ñoom nag dinañ ko def ba nga xam ni rek lépp rek luy seen bëgg-bëgg ñu mën ko saafara ci ni mu gën a gaawee. Euh, Fatoumata Touré ñu koy jaajëfal ñu dem ba fële ca unité 15 ca Parcelles Assainies ndox mu bon ma nag euh, ma ngay euh, jabaajoole foofee nag mu doon loo xamante ne metti na lool ci askan bu weesoo nag ndox mu bon mu xet ga ma nga leen di rey loolu nag ñu ne ñu ngi koy dund ay at a ngi nii bëggatuñu koo dund rawatina ak bu ñu tollee ci jamono yi nawet la ci gën a metti nag mooy tey seeni doom amatuñu wér-gu-yaram dañ ci ànd ak Cheikh Sadou Fall. unité bu Parcelles ndox baa ngi ballee fu ne ànd ak nget bu bon lii nag yàgg fa lool te a nag ndox mii du fi nekk te at mu ne man de ba ma fi dëkkee 87 ba léegi 86 87 laa fi tuxu si bi égo yi commencé ba léegi ndox mi nii lay mel at mu ne nii lay mel ñoo la ko gën a xam waaye duñ ko faj ñoom daal seen problème mooy politique rek duñu liggéey duñu def dara politique rek la ñuy def. ndox mi mi ngi nii lii la ñuy dund avant noor nawet mi ngi nii égo yi sunu biir kër yi gis nga ko. dunduñu ñu ngi bëgg a dee suñ doom yëpp a feebar ñëpp a soj tey bi ma xëyee rek li ma jënd ci ordonnance xaw ma nu mu toll fan yële dañoo mujj fay ndaraan fay ko cent mille francs dugg ci kër yi ak magasin yi doon lu jafe lu waral loolu mooy li ñu tabaxee dëkkuwaay yi. ak force que ni ñuy dëkk donc la surface se réduisant l'espace qui était là muy la euh, pardon cuvette bi donc euh, place publique nga xam mooy cuvette bi doon recevoir ndox bi mënatul continuer ndox bi parce que nit ñi dañu gën a bari yaay sur dafa am surpopulation donc égout yi léegi bu feesee da koy déverser mbedd mi et puis du suñu égout unité 15 parce que unité 15 dafa nekk sur le bas point boo ko xoolee par rapport ak unité 17 12 16 19 HLM Grand Médine descente la en partant vous voyez à partir de Dior ou bien de boulangerie Mandela donc bu tawee ndox mi dafay ñëw en grande quantité stationné ci kaw digg terrain bi ce faisant ñun ñi nga xam ne sommes les impactés directs muy kër yi ko wër yëpp dafay fees yàq na fi à maintes fois dugg na fi yàq fi tous les appareils électroménagers ay literie ay bagages parce que ça nous surprend heureusement qu'il n'y a pas mais ça aurait pu se passer la, la nuit à certaines heures ce pire mais alhamdulilah aguñu fa. unité 15 bu Parcelles Assainies askan ba fay yeewoo ñu ngi dund lu ñu mel boobu ba léegi gannaaw jafe-jafe yi mu mën a jural askan wi surtout ndaw yi. ñu àddu nag ci euh, tukki gu jaarul yoon gi tukki gi lewul gi lu ci mel ni rek gone yi wutali euh, gaaliwu la coy ngir nag dem ca biti réew loole nag la mbootaay gi ñu duppee Azadik taataan euh, bëgg xeex nag ki ko ci dooleel tey bokk na ci Konrad Adenauer ñu ne nag xeex bi faaw rek gox goxaan yi dugal ci seen loxo tey nag xëy nañu amal ab ndaje leeral yeeg Cheikh Diop Mohamed Dieng. ginnaaw bu ñu wëree yenn ci ay gox yoo xamante ni ñu ngi fii ci réew bu Sénégal association sénégalaise d' appui. ak itam décentralisation et aux initiatives citoyennes taataan jamono yi taxaw tem ngir dakkal lépp lu soxal wàllu immigration irrégulière naka noonu itam a ñuy sàkku ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di collectivité locale yi ñu daal di leen jàppale ci wàllu wi. collectivité locale yi dañoo bëgg ñu jublu ci baax ci question wu insertion yi gën a mën a maîtriser demande bi. gën a mën a structurer demande bi ba nga xamante ne nii bu fekkee na am na luy ñëw pour di jàppale ndaw yi ñu mën leen a gën a orienter ak ñooñu di indi programme yooyu ñu gën a mën a orienter loolu ñuy joxe muy offre bi. lii mu mel ni dalul ci noppu tëx bi représentant bu association des maires du Sénégal di dëggal boppam. AMS taxaw temp ngir dox ay jéego ci mbir mu ni mel. ñu continuer di euh, waxtaan ni échanger suñu xel yi. ci préoccupation des problèmes au niveau des Sénégalais de l'extérieur au niveau de l'immigration mais lu ñu mun a def pour que suñu doom yi suñu xale yi suñu euh, que def euh, pour ku nekk ici ci Sénégal pour que ñu liggéey. jàppale leen waaye itam fexe rek nu ñu sensibiliser askan wi. am na ñoo xam ne jógewuñ fii demuñu fii fii lañ musa toog gëm fii te réussir nañ donc du rek balaa ngaa réussir da ngay dem bitim réew mais dañuy woon nit ñi rek ne leen tey. opportunité yooyu noonu mën nga ko am Sénégal sensibilisation warul yem ci xale yi dafa war a dem ca famille bi parce que léeg-léeg yaay ji mooy làqatu ak doomam baaja du yëg sax wala dara organiser benn voyage bi nga xam ne parce que aussi femme immigration clandestine doon ab question d'actualité fii ci réew bu Sénégal Azadik Tatan di sàkku ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di ndaw yi yeewoo ci tund wi ñu bàyyi xel bu baax njeexital bi nga xam ne mbëkk mi mën na koo indi waaye itam di sàkku rek xale yi daal di fësal li nga xam ne moom lañu am ci réew mi ngir koom-koom bi gën a ñoŋ ñu àddu ci euh, ciment bi ak njëg yi yokk lu ca mel ni ciment 32 bi loole nag njëg ba fi mu ne nii yokk na bu baax a baax loolee la ñu nemmeeku waaye ciment 42 bi tamit naka noonu euh, kon njëg ya yokk na am na lu ca tegee doxantu nañu rek ba ci yenn ci kenkaayir yi euh, seen i borom nag yëkkati nañu ay kàddu nee nañ nag lu jëm ci yokkuteeg ciment boobu ñoom it bu ñu ko jëndee faaw ñu yokkaat ko duñu ko mën a jaayee noonu kon daal mu mel ni yëf yi dana metti sax ci jëndkatu ciment yi jamono ji ñuy wax ak yéen Mamadou Sarr muy li ñu nemmeeku jamono ji ñi ko nemmeeku rek moo di ñi yëngu ci wàllu quincaillerie njëgu tonu ciment bi daal na yokk muy ndogal loo xam ne ñi ko jël rek moo di fournisseurs yi te ñoom sax ñoom yi jaaykat yi laajuñ leen ci seen xalaat. ciment bi ma wàccee nii léegi nii tey ci euh, mardi bi dafa yokk waaw tonne bu ne teg nañ 3500 tonne bi ñu ngi ko doon jëndee 55000 32 bi 42 bi ñu ngi koy jëndee 59000 instant bi nag 32 bi mu ngi 58500. 42 bits c'est la même chose teg nañ moom ñun dong ñoo jéem xam nga ñun ay lointinoo dong la ñun soko si moo ñuy jox ñuy jox client yi suñu ñoo yokk suñu ñoo wàññi amuñu sax dooleem. ñi nga xam ne ñooy a ñàkk ci boobu la dogal rek mooy way jëfandiku yi nga xam ne ñoom yëguñ. client bi dama koy yëg kay client bi de moo koy yëg te ñun bu ñu sañoon sax client bi du ko yëg ndax ñun client moo ñu arrangé te client boo yokk na du kontaan ñun bu ñu sañoon mu wàññeeku ba client yi euh, mën a bég. client bi moom day métti trop. parce que man tey euh, ñaari client ñëw nañu laajte ma wax leen prix bi mais dañoo dem pour ñoom si yokk bi ci ñun la. li ñu seetlu mooy fii ci Sénégal ñu fi yëngu ci wàllu cimenterie bëri na trop waaye woy jëfandiku bi nag moom di continuer rek di yëg seeraayu produit boobu nga xam ne da siy faral di nemmeeku ay yokk-yokk te du xam sax lu ko waral. ñu wax ci wàllu politique ak kàddu yi euh, tukkee ci euh, Ibrahima Sène bu PIT moom nag mi doon wax ni. Euh, parti démocratique euh, bu euh, Sénégal bu bàyyiwul nag li muy def maanaam ñàkk déggoo gi ñu nemmeeku ci biir njiitu réew mi Macky Sall am na sañ-sañu kon daal di rek kon tas boobeeb parti kàddu yooyu nag am na ñu mu yëngal ci langu politique gi ku ca mel ni Madiaye Mbodj bu yoon askan wi nee na nag ci jamono ji ñu toll nii fii ci Sénégal eh, jéem a sax naan yaa ngay daaneel ab parti politique maanaam seyal ko loolee nag dafa mel ni rek sunu démocratie la ñuy delloo ginnaaw Alioune Guèye génn bi Ibrahima Sène bu PIT def di wax ni njiitu réew mi mën na nasaxal ab parti politique ginnaaw doxalinam jaarul yoon mu siy joxoñ baaraam PDS loolu neexul benn yoon kii di Madieye Mbodj. bu fekkente ne euh, dem nañu bay xalaat ne te ji senegal war nañoo tere ab parti muy liggéey euh, dafa mel ne dañuy delloo juróom-benn fukki at ci gannaaw. démocratie tigi ba léegi dafa ñàkk ci réew mi. wante li nga liñ ci amakus néew dañ koo xeex kenn mayuñu ko kenn saraxuñu ko dañ koo xeex ba jot ci ñenn ñi dañ cee ñàkk seen bakkan ñenn ñi seen i njaboot tasaaroo ñenn ñi ñàkk seen liggéey ñenn ñi ñu ñu xañ leen seen wér-gu-yaram. PA yi moo nekkoon parti bi ñu njëkk di dissoudre fii ci Sénégal loolu waral ñu nekkoon ci ab clandestinité. PA yi moom mooy parti bi bi nga xamante ne cent 1960 moom la ñu tere euh, dax ay njiitam. ñuy dem ay Mali ñu Majmout Diop ñuy dem ay Russie ak feneen euh, ci gannaaw loolu euh, parti bu yi nga xamante ne ku mel ni Cheikh Anta Diop créé na fi ay parti ñu ñu ñu ñu tere ko donc loolu am yàgg na am Sénégal wante nag li ma la ko waxee dafa am yi ay xeex yoo xamante ni yoo ñu may nag ñu yaatal ni ko woykat bi waxee yaatal géew bi. fii ci Sénégal njiitu réew mi moo ŋànk pouvoir yépp loolu kii nekkoon ci ànd jëf di ko ñaawlu. kon lépp. sañ-sañ yëpp kilifteef yëpp dafa nekk ci benn loxo muy président de la république loolu nag moo tax président boobu bu ko neexee tey ku mu sosal ku mu fexeel ku mu génne ci ci ci ci euh, langue bi tere la da koy def te da koy yomb lool. nasaxal ab parti politique ci jamono jii ñu nekk dina doon ab dellu ginnaaw bu rëy suñu dégloo Madieye Mbodj ñu gis ni Sénégal am na fi mu toll ñaari téeméeri parti politique. ñu wax nag ci ndaje mu yaatu mi nga xamante ne nii nag ñi ngi koy waajal muy union mondiale bi nga xamante ni moom moo boole mbootaay yu soxna yi catholique yi fii ci euh, Sénégal loolu nag ñu ngi koy waajal léegi tey mu yegg si euh, mbootaay yooyu nag janoo noonu tey jile ak taskatu xabaar yi euh, fas yéene rek kon addu ci tomb yi nga xamante ne daanu ko ca yëkkati bu ñu ca yeggee waaye jàppale ni du ndaje mu tuuti ndax lu toll ci fanweer ak juróom ci réew ñoom ñoo koy sekk ñu teewlu Monique Faye Thiandoum moom moo jiite jiite mbootaay googu ci euh, micro Aïssatou Paye ndaje la boo xamante ne dinay may jigéen yi nga xam ne dañoo bokk ci union mondiale te union mondiale nekk kuréel boo xamante ne dafa ëmb euh, kuréelu jigéenu catholique yi yëpp euh, ñooñu nga xamante ne dañu fi nar a ñëw daje bi ñuy daje par ñeenti at lañ koy def te bu ñu dajee lépp loo xam ne dañu koy liggéey dinañu toog seet ba xam fiñ ci toll ndax euh, bu ñu ñi bokk ci IMOF dañuy daje ñu di ñu dénk ay soxla yoo xam ne di ñu dénk ay préoccupation yoo xam ne dañu ko war a dañu ko war a liggéey yàlla def na ñeenti at yi yëpp dañu ne woon nañu gëstuwaat ci njaboot gi ndax njaboot gi di mu meloon bu njëkk ba ak ni mu mel léegi xaw na wuute da ngay gis ne li ñuy wax mettital dafay am fu ne peut-être xëy na am na fu muy wute mais dafay am fu nekk kon loolu yëpp dinañ ko waxtaane dinañ ñu gën a sasaat aussi euh, won ñu wax ñu ni nga xamante ne noonu la ñu war a euh, tooge ci suñu jeetaayu jigéen suñu jeetaayu soxna si biir kër yi suñu jeetaayu citoyen tàggat yaram Sénégal Soudan samedi lay doon euh, muy jongante boobu nag bokk ci éliminatoire yu coup d'Afrique des Nations yi Sadio Mané nag tey xëy na euh, kon fekk si euh, tañeex bi def naa tàggatoom bu njëkk moom ni ki tey ji gannaaw bi mu yëkkati ay kàddu ne xam ne ni nag boobu yëpp jongante du yomb waaye nag daanu def seen ként lay kàttan ñu teewlu ko ak Mamadou Fall. on a fait le décrassage def nañu décrassage xam nañ nag li ñuy xaar. match la boo xam te ni bu am solo dañu def suñu kéem kàttan nag ngir gagné ko amatul équipe bu ndaw fii ci Afrique te Afrique nag xam ngeen ni dafa am ay réalité am dinañu ànd ak euh, xel mu dal dal teg ci euh, respecte ki nga xam ne moo di suñu adversaire euh, ndax moom kay li muy bëgg mooy gagné ñaari match yi waaye ñun tamit danañ fexe ba gagné ñaari match yi. équipe la boo xamante ni moom Soudan équipe bu bë bu bëgg gañe ñaari match yi ngir euh, mën ci euh, génn waaye ñun nag euh, daanañu pare def suñ kéem kàttan ànd ak suñu public ngir gañe match bi rawatina bi ñuy amal fii ci Sénégal. d'être prêt devant notre public, jongante boobu ci stade Léopold Sédar Senghor lay doon Mamadou faal nga doxantu fa rek ngir xool nag nekk nekkinu stade boobee bu ñu ko xoolee tey nag mu mel ni kon lu bari bari euh, soppiku na euh, pelouse ba nag qualité ba tax ñooy wax nekku fa euh, mu mel ni sax sunu gaynde nag ñoom am nañu rek xel ñaar ci boobu stade bu ñu sañoon nag ñu gën koo defar donte nguurug Sénégal nag mi ngi doon wax sax ne ay koppar yu bari kon génnee nañu ko ngir nu stade boobee dañu ci ànd ak Mamadou Fall ma fa xëyoon doxantu. nekkoon ab joyau sportif di stade bu njëkk ci senegal wante tey ati di dem stade bi di ñàkk lii di xar kanamam gannaaw nag koppar yu bari yuñ ci dugal ngir defaraat ko amitié tur wa mu yoroon ca bañ koy taxawal Léopold Sédar Senghor di tur bi ko Abdoulaye Wade jox moom infrastructure sportive bi ngi ñàkk taaram ab pelouse boo xamante ni doonu lu gën. honnêtement c'est c'est pas la pelouse. honnêtement du pelouse bi lañ doon xar doon nañ xaar pelouse bu gën bi ngir ñu mën a football bu baax a baax waaye xam ngeen ci Afrique lañ nekk duñ def lu dul jéem a adapté wu. cette pelouse c'est pas c'est pas c'est pas fameux honnêtement. j'avais vu bon. bon bi la am doonul li gën waaye faaw ñu adapté wu. faaw ñu adapté wu. on n'a pas mu nekk nag stade boo xamante ni moom rek mooy wuyu ci norme yi mu ngi ci état de délabrement. moonte day ministère de sports génne ab prévision. jàpp ni kon enveloppe bu ëpp ñeent fukki milliards daañu ko jagleel bile stade ngir defaraat ko Léopold Sédar Senghor mooy dalal kon pàcc bu njëkk ci double confrontation senegal Soudan nekk match boo xamante ni jàpp nañ ko fukki fan ak ñett ci weeru octobre. jërëjëf Mamadou Fall mbokk yi nit sant nañu leen gërëm leen ci kanam tuuti 20h Sara dina fi teew ngir jukkil leen xibaar yi ci nasaraan jërë ngeen